doon rakk ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak Serigne Abdoul Aziz Sy Amin ak seeni jigéen ñoom soxna Umu soxna Zeynab ak soxna Aminta yàlla dogal moo doon caat ci Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy am fu ko tegoon ndax fonkeel gumu mu fonkoon Maodo turandoom. Serigne dafa dajale woon senegal Sénégal dafa ñëw ba ci pamali rek daje fa maanaam dañoo ñëw rek góor foofu ndax boo xoolee euh, Serigne Pape surtout Seydil Hadj Malick la di doomu Seydi Aboubacar Sy ñu tuddee ko maamam mais boo toppee lignéem sëtu bi la direct ndax képp malik Alaaji Malick meññe képp ku Chamsidine meññe nga Bundu nekk Suyuma wala Njum wala Podor wala Jaataar Suyuma ñoom ñoo ñoo tiyoon jaar sin du graw ci jolof ci keur mam dem ba bunna kep ku fa walonga si wala nga desi, ku sante si yonent bi sa mam la ñu xam lolu ba pare alaaji malik bu ñewé yaayam mam mujur wad welé faatumata lansaar mo jur boté fay mu jur fa wad welé mu jur alaaji malik boko topé yonent bi kon fofu la meññé mais yalla may ko itam mu am deretu bour deretu gor khalifa roxee Maam Roxee Ndiaye la ñu may Maam Alaaji Malick rue Tolbiac mu denk ko fa am fa Maam Fatsi ndax Alaaji ñaari Fatsi Fatsi bu Roxee Ndiaye ak Fatsi bu Sofee du te dinaa la wax ni si bokkul ak Maodo si bu donte ñoo ko bokk fañ bokkee du foofu ndax Maam Roxee Ndiaye sëtu buur ba jolof la ndax Ali Boy ay mer yu ma jeey biram yu ma jeey biram yu ma jeey gànkeel biram xujja tam donc dangay ngay dugg jolof boo ñëwee ci gànkeel biram xujja tam ñooñu ñooy maamu Roxee Njaay mais da ngay ñëw foofu wàcc ci Soxna Njaay Soxna Njaay aram bonko aram bonko moo jur Sofee du ñang ñu may ko Alaaji Malik mu am ci fat si moom mooy yaayu maam Bachirou Ñang ca Afe am ci alaaji Mansour di woy juru xalif général bii Serigne Mbaye Sy Mansour teg ci alaaji Abdou Aziz ak alaaji Habib ci ñu góor ñi mais am na nafeek euh, umu xayri ma ca baxeer ñooñu ñëpp maam Sofietu mooy seen yaay kon alaaji euh, Maodo Sy ak Pape dañoo bokk diggante Roxee Njaay ak Sophie du ñang ñu bokkaat aussi ak Maodo Touré bu fas Touré ndax maam Masamba Jéeri donte bawol bawol la dafa am de askanu jolof moom moo am doom bu ñuy wax Yacine Dieng ñu dënk ko Alaaji Malick mu am ci Aïda Yacine Aïda Yacine ñu may ko maam Hadi ture mu am ci Maodo Touré Moustapha Touré ak maam Pape Abdou Aziz Touré mii di mu diir nga pare Pape Malick dugg biir saalum ndax maba jaxu muy maamam mariam ba astukat mariam ba selbe selbe mariam ba mariam ba astukat ndax selbe lañ may maba jaxu lañ may maamur dari moo am ci mariam ba mu jur astukat ñu jox ko alaaj euh, euh, sëriñ Babacar mu caat loo Pa Malick selbe Diouf Bursin kuma kumba fa la joge mu nekkat sëtu bursin mom pa malik nekk sëtu mabba joxu nekk sëtu burba te bo duggé bursin da ngay dem kër sa xewor Fatma sa xewor mbirum sa xewor sa xewor Fatma te ñoo ñoo meñ li fi nekk yépp ñom la joro ñoo ci day bokkat fofu lolu tax il avait le sang royal kon tey Pape Malick booy xool dafa résumer Sénégal ci walu juddu. ndax sëñ Babacar dafa soppoon Pape Malick façon boo xam ni néew na sax way jur di ko soppe doomam e, ki mu ko tudde nag yaakaar naa moo yokk loolu muy Seydi Hadji Malick sunu turandoo bu masaan di dem jumaa sax faw mu gis ko door a dem lu Pape Malick bëgg rek mu wutal ko ko sëñ Babacar masul nangu dégg sëñ Pape Malick ba muy ndaw muy jooy def ne na noppi walla man ma génn kër gi ba mu noppi ndax mënuma supporter jooy sëtu Seydi Hadji Malick ci kër nañ ko nax ba mu noppi walla man ma génn kër gi dem feneen ba ba ba ba seex ba mu noppi pour pour la ni rek ni meloon ci moom Eh, doy na waar bëggoon na ko lool waaw. Pape moom dundam. caat la waaye Tiwaawan la ko defee dundam moom dund gu féex la woon ci Tiwaawan wax dëgg yàlla léeg-léeg nag daan naa fa dem di ko gis waaye yëfu boppam lay def waaw waaw dafay def ànd ak ay yëfam di toppatoo ay affaire boppam rek. waaye nag boolewu ci woon benn njublang lu muy def lu koy def boppam di ko def pour nit ñi day jàngi kenn du ko duma nag ndax du def dara luñ koy duma <laughs> wallaahi loolu laa ko xamal daal xamaluma ko benn njublang wallaahi dëgg-dëgg te xale la booba nag noon na def luñ koy waxal waaye dara bu ñëwee daal dina ko toogal rek mu toog am benn xale yaayam yor Fatou faatu moo ko daan fab bu réew mu ni faatu fab nañ dem bu ñu nee faatu mu ni faatu bu dem moom daal neex ndeysaan neex ñëpp bëgg ko ndax ni mu waxee ni mu defee dafa neex ñëpp waaye boobu tuuti la boobu sax alxuraan après nag ma bàyyi ko fa man dematuma Tiwaawan maa ngi fi toog yàgg na lool sax ab daal bi mu doonee mag laa ko xamaat muy ñëw muy ñëw Tiwaawan di ko fa fekk waaye mësuma ko fekk mu def benn njublaŋ lu dul duñ ko nii rek mu ni waaw sëriñ Babacar daf ko soppoon ndax li mu ko tudde Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu daf daan wax ni a ah, moom day dundam bu ci amee doom bu mu tudde Seydil Xaaji Malik rekk gannaaw gi lu xew baax na yàlla jox ko ko nag mu bëgg ko lool nag kenn du ko tudd kenn du ko taas lu mu bëgg suba ba ngoon mu ni nañu ko wuti jox ko ko mu ni dafa bëgg kéwél góor gi ni wuti leen fu mu mën a am kéwél ñii dugg àll yi ñii aw yoonu jolof jolof lañu ame kéwél indi ko ba Malick dafa gimme rek sëñ Babacar fal ko yàlla xam na ko ku ko sopp rek mu sopp la sëñ Babacar kër ak Pape Malick mii da ngay réew ba bëgg toskare wallaay ndeysaan waaw moom kenn du laal kenn du wax waaw. waaw xam nga nag ñoom seen relation ñoom ñaar euh, dafa nekkoon mën naa wax que ni seen relation ñaari étape la ci li ma ci takk étape bu njëkk bi mooy bi sëñ Pape gënee nekk ndaw dafa attaché woon papam te mag ñi je ñu mom confirmer Babacar daf ko daan jël ko guddig lemb nek ci kurusam ngir affection bi mu ci di dem ba daf ko daan fanano mom pap teud na ci ginnaw Babacar ñaari at donc lolu suis ci ñom ñaar ben complicité Eh, sëñ Babacar lu ko lu ko kenn ñemewul woon a ñaan sëñ Pape rek ko mënoon a ñaan mu defal ko ko daf ci daan dem ba mag ñi suñu demaan ba soxla sëñ baabakar mu soxla boppam moom tëj te mënuñu jot ci moom sëñ Pape la ñuy ñëw wax ko ni ko pour mu fëggal leen góor gi te nee na suñ su masaana ñëw ni koŋ koŋ koŋ ni ko papa ubbilal sa papa lu sëñ Babacar doon def da koy bàyyi jóg ubbi bunt bi

da daan ñew neena na day ñëw di netali seigne babakar ay histoire yi ko moromam yi daan netali neena seigne babakar daf daan reeb ay rangoñam di di di di di fasle ndax su ñewé dégg ben histoire neena am ci ben histoire bu réelu buñ ko daan netali ci eh, eh, eh, mbër ma doon beure ban ko pesee mu mu jaxase amna na daal lu fa jokk si seigne pap daan nettali neena seigne babakar day reeb su bëggaa daf koy woni ko wa Papa As nga ni mbir nu mu defati rek mu nettali ko histoire boobu mais nee na dafa dem ba si yàgg rek mu mel ni dafa am lu ko ragalloo sëñ Babacar te xamul lan la nee na ba bis sëñ Babacar si wolu Serigne Cheikh ak Soxna Astu góor gi ni lii daal jaaxal na ma moo tax dafa daan toog bu mujj mu trési ni Pape Malick ni mu yëngoo woon ak man gimmi rek ragal ma loolu jaaduwul ndax ki ma gën a bëgg ci àdduna laa ko tudde kon nag boobu buum ma ko def mukk mukk mukk. nee na soxnaa si ci boppam moo ne ko gis nga di nga am baay boo xam ne di nga dem ba benn moment di nga xam que ni kii du baay kese kese te kenn du la ko wax nag yaa koy xamal sa bopp donc moom benn moment demoon na ba découvrir dimension spirituelle dimension mystique gu sëñ Babacar ba moo tax nag mu commencé woon a def réserve digganteem ak moom xam ni kii dootul papa kese kese waaw am na lu mu làmboo donc rek euh, loo mën a sax ak moom il faut nga tey ci ndànk-ndànk Cette affection sera prolongée par son frère Serigne Cheikh Almartoum, qui fut son maître au sens plein du terme. te nettali na ma ci làmmiñam mu ni Serigne Moustapha Sy Jamil radiyallahu taala anhu nee na bi Serigne Babacar si génnee àdduna ba mu am ay fan nee dafa ñëw doon ko seet di ko ziar di ko jaal góor gi moom sëñ Pape nee na sëñ Moustapha ni ko man day demu góor gi yow dong yaa ma ci doon inquiété ndax dama xamoon seen relation ak fi la góor gi tegoon mu ne ko waaye bi ma xalaatee ni Serigne Cheikh nga fa rek ci la sama xel dal ma xam ne dina mën a gérer situation bi ba euh, débordement daam sëriñ Cheikh nag moo ko doon jàngal alxuraan waaye mu daan ko def li sëriñu daara di def ndongoom di ko caw te te te moom faaw mu dóor ko ndax ku ñuy jàngal moom faaw ñu caw la ba tax na noonu la deme woon boole ko sëriñ Cheikh nag sëriñ Cheikh yar ko moom itam ni ma ni ma jàngal ko ma di ko jàngal alxuraan léeg-léeg ma domp ko domp bu saf niko bu ko wax góor gi de nek ko xamanteni nek doomu daara pur ndax kenn moko ko moko former moko tabax à son image nak du Serigne Cheikh Tidiane si te koku boko tuddé xamni c'est l'intellectuel organique de la daara de Serigne Babacar si et de la daara de serigne El malik ndax ñi mu bokkal ñëpp ko fonk fonkoon sa sopp ko mu joxoon leen cër bu mu joxul kenn ci àddina muy alaaji Mansour ak alaaji Abdou ay baayam lañ dañu bëggoon Serigne Cheikh ba gëmewuñ ko moom itam mu fonk leen ba gëmewul leen man damaa fekke nettalewuñ ma de dama fekkee mu ni alaaji abdu mbaax bu yàlla am jox na la ko alaaji Abdou ni ko yow yaa war a wax ak waa Sénégal ñu lay dégg di la deglu kenen warul la wax bo fi nekké nekkee la bu na lol wala wala wala mënul weesu lol ba paré serigne Babacar djel ko jox ko alaaji Abdu mu mu jangal ko yar ko wax nako sax serigne Cheikh bu dul won ak mom lu bari dina yakku mu ñu fekk làmmiñ bi yakku bu yag nee moko defara ko defaraat la ko alaaji Abdu fayee ci modou si fukki at la rek alaaji jabb jox ko ni ko lima def lima ma sa baay defaloon la lay defal ci modou kër gi noonu la tëddee kooku nag moo yar Serigne Pape Malick ci loolu bu jël ko topp ko ba bi Serigne Cheikh nelawee ñu bare sax seen xol fees na ndax àdduna bu Serigne Cheikh nekkul la mu waxoon rek àdduna bu Babacar si nekkatu mais ñu bare bi ñu gisee Pape Malick la seen xel xaw a dal ndax dañ koy gisee Serigne Cheikh moo tax may wax ni bi Serigne Pape Malick demee la Serigne Cheikh doo ko dem. waaw xam nga ñoom ñaar eh, du ma nii diggante mag ak rakk la.

mom def ni ko yow du ma la jox werte Serigne Cheikh mo lay jox werte te effectivement nee na bi Serigne Babacar génnee aduna bam am juróom-ñetti fan ci bir souf nee na la ko Serigne Cheikh wo mu ñew fekk ko ci néegam ci souf mu ne ko dama bëgg tàllalal pour ma jox la tarixa bi nee Serigne Babit ni ko dama bëggoon nga may ma ma wut ci seede mu ni ko koo ciy wut seede mu ni ko sama yaay soxna astu de moo soxna astu ñu ñëw toog sëriñ Cheikh jox ko tarixa bi ci bis boobu tamit la ko defal lépp lu nit di am ci tarixa bi mu defal ko ko jox ko ci ndigal mais nag mu tegal ko ci lu am solo ni ko waaye nag yii yëpp am nga ko waaye bu mu la jaral fanaan ci der ngir soxla ni ko loo am lu la jaaxal rek bàyyi ko góor gi li may wax que ni seigne Pape soko ko pratiqué wul do meuna xam euh mom tamit shawqa euh, bi mu amoon cheikh wa parce que motax mani ma du question wu magam la muy rakam wala sax je dis bayam la parce que mom def ko mas a jàppee comme bay c'est pas pour rien que souvent ngay dégg su togué ak njabootu Serigne Cheikh wala ñom dañ nan moy taw Serigne Cheikh waaw parce que effectivement mooy taawam aussi waaw donc nag Serigne Cheikh jël ko ko tek ko ci wetam jangal ko ko ba comme eh, c'était un produit fini de Serigne Cheikh ndax len musuma deg waxtanam bu su commencé du Serigne Cheikh terminé dem na ci sax ba benn moment euh, maa ngi fàttali ko benn waxtaan ci moni mu ni dégg naa étudiants université yi su ma commencé dañuy jël seen bic ak seen feuille di euh, di noter nombre de fois yi ma cité Serigne Cheikh parce que moo doon référence am moo doon guide am moo doon maître am donc moo ko orienté ci dund. que celui qui m'a élevé celui qui m'a corrigé celui qui m'a enseigné celui qui m'a cultivé et celui qui a fait de moi un homme au sens large du mot. Seigne Pape. soo xamee tuuti li ko lié woon ak Serigne Cheikh nga xam ni bi Serigne Cheikh demee ci lay soog a ñàkk sëñ Babacar si mais tant que Serigne a ngi fa woon ngi fi woon rek moom pour moom sëñ Babacar jógewu fi mais aussi am ci benn mbir mu doy waar boo xam ni moom sëñ Pape daf ma ko wax muy jamono gàmmu Tiwaawan ñu dem nii mu dem ziyaare soxna Aminta bi ne gàmmu gi des na ñaari fan xaw ma ñett. bi ni ñibbisi ba ba jupp zawiya sëñ Babacar ak nit ñaa ngi bëri après mu muni muni ah man su nit ñi dee wax ni Serigne Cheikh dafa dafa dafa dafa faatu daf may reeloo ñu ñëpp ñu tekk di ko muni mu ne en fait parce que faatuwul mu ni man xam naa fa mu nekk waaw mu bi mu fi jógee ba ma su ñaanal ñaanu ko faatu ba léegi ñaanala bu ko ñaanu ku fi parce que xam naa fu mu nekk wallahi alquraan al-aziim xam naa fu mu nekk mësuma ko ñaanal ñaanu ku fi jóge waaw eh, tabarakallahu vraiment vraiment vraiment bu la nampalul ci la vie mystique bu ci jéem a dugg. xam nga loolu ki nga dund ak loolu pendant plus de 40 ans plus de 50 ans ngeen nekk ci loolu nga xëy yàlla di ko ki mbiram ah euh, même su fekkente ni xëy na ci wàllu euh, euh, baatin. la ngeen di jëflante yéen koy jëflante waaye nag ci wàllu zahir dina la dina la dina la dina la manqué mais terewul it mu xam ni fi mu toll nag ah responsabilité lu mu nekkoon benn ya responsabilité ba yokku na waaw donte la Serigne Abdou ngi fi woon mais aussi Serigne Abdou digganteem ak Serigne Cheikh soriantowul six mois ñu dem ndax dëgg yàlla am taxawaay it bu mat sëkk waaye kilifaam yooyu lépp lu ñu doon def rek. lu mu ci yokkul wàññiwu ko lu mu ci yokkul wàññiwu ko ndax am na ci bëri xam naa ko quand même parce que dund naa ko ak moom li mu war a taxaw mu taxaw ko li mu war a def mu def ko ci wàllu kër gi ci wàllu xadara bi ci wàllu njaboot gi macha allah ba euh, li ma wax ni nit ñëpp dañu demoon ba ni ah alhamdulilahi rabil alamina ndax ci benn laps de temps bu gàtt diggante mars ak septembre nga ñàkk ci ñaar ñu day ni Serigne Cheikh ak Serigne Abdou mais dina indi jaaxle-jaaxle ci xolu nit ñi ci bopp taalibe yi mais fa tabarakallahu ak taxawaayam ak farloom ak yitteem dem nañu ba xelu taalibe yëpp daloon ñu ne alhamdulilahi rabil alamin malgré lii am na waaye xam nañ que ni am na ku taxaw suñu kanam pour la mag ñi bëggoon a def mëbët ba mu mën leen ko yeggaleel mais nag su yàlla dikkeek ay mbiram aussi kenn mënu ci dara donc yàlla dikki naa koy mbiram dañ koy nangu mais daal taxawaay bi mu waroon a am ci ginnaaw yi ay kilifaam fa tabaarakallaahu matal na ko ba dara manqué wu ci. Serigne Abdou ci boppam daf ma wax ni ma Serigne Cheikh kër gi mënu koo fay ndax la mu waxoon ni rus naa dem ci mag ñi. di leen wax ni bàyyi naa conflit ca kër ga na mu ko bëggee woon yàlla maye na ko ko noonu te moo di tey fa tabaarakallahu kenn ku ne wóolu nga sa moroom ci façon boo xam ni la ngay xalaat moom ngay fekk ci moom fa tabaarakallahu yàlla na sax mu ni ma waaye nag nii nga xam ni moom lañ ma tànne woon gannaaw sëriñ Cheikh yéen ngeen jàppale ma noonu dey lañu tànne Serigne Babacar Sy mu nekk xalifa mu ni ma yéen a koy jàppale nag wax ma lam ma ca ñaan lépp ak lim ma ñaan ci kër gi ma ni ko insha allahu dinaa ko def ku ci ànd ak man dana ko def ni nga ko bëgge fa tabaarakallahu moom tey wax waxuma moom Serigne Babacar Sy Mansour mii ñu topp ci gannaawam mu nekk xalifa waaye keneen ku mu joxoñoon ni nañu topp ca gannaaw kooka mu nekk xalifa ñu topp ca gannaaw kooka cër bi fa tabaarakallaahu tey moo ko moom loolu la yàlla dogal ñu ngi lay jox suñu loxo di jaayanteeg yow di la nangul sa di la wax ni daanu la jàppale ci biir ak ci biti ci sa barke wayjur sa barke turandoo sa barke maam ak yen bi incha allahu du metti du diis ila yowmil qiyaamati ndax sa turandoo dafa waxoon ni yàlla bu la yenee yen ba du diis ndax du tegu ci sa bopp dafay ñëw ba tiim sa bopp mu téyal la ko tabaarakallahu loolu moo am kon nag sëriñ bi yëf yaa ngoog insha allahu taala yàlla dana la ci jàppale barke mag ñi sa barke turandoo ci biir ak ci biti kon nag suñu loxo ngoog jàngal nu fatiha kay famille bi yëpp ñi ngi jaayanteeg yow ñëpp a ngi jaayante mbooloom yëpp a ngi jaayanteeg yow ñi mën a ñëw ak ñi mënul ñëw di ko wax ni ko si jëf laa fudda fuuka wala callat yadaaka yal na la yàlla sàmm yaag sarak jooju nga dendal mu di Seydil Hajj Malik ba tabaarakallaahu ñu di leen fàttali rek ni kër Seydil Hajj Malik a ngi nii ah ah ah ah benn jëmm dernier fils du khalif sur terre, Serigne Pape Maliksi, a été désigné porte-parole du khalif général des Tijan, Serigne Babakarsi Mansour, en 2017, suite au rappel à Dieu de Serigne Abdul Azizi Alamine. Éduqué à la bonne école, aimable, brillant intellectuel, maîtrisant parfaitement les principes islamiques et les sciences religieuses, Serigne Pape Malick avait aussi l'aptitude de cerner l'évolution et les réalités de la société sénégalaise. li ma gën a marqué ci moom mooy ñetti don yoo xam ni gis ci Pape Sy d'abord juddu bi kuy sa papa ñu ni Serigne Babacar Sy radiyallahu taala Qui kuy sa yaay ñu ni Soxna Astoukan, Kane radiyallahu taala anha loolu nekk na benn don bu njëkk ñaareel ba pas mal Sy ku ko gis ce que j'appelle la beauté corporelle mais aussi intérieure Beaucoup ko gisee donc ils nga koy coco bëgg ko kooku marqué ma ci troisièmement culture Pas mal Sy qu'est mësuñu gis naa ko mu dal école français dem dugg école di toog ci banc di jàng waaye bu ngeen làkkee tubaab moo la ko gën fuuf

nu muy duggante ak nit ñi te ku ci nekk buy jëfalanteeg yow la ciy sa cër dara du ci manqué ci biir ak ci biti loolu daal marqué na ma ci sëriñ Pape Malick si ak nag éloquence bi macha allah Pape Malick mën na toog fii pendant deux heures trois heures di waxtaan ci ay thèmes yoo xam ni mais ku nekk dafay waaroo ni kii fu mu jëlee xam nga parce que te it àddina bi musul metti ba am ci moom ba mu feeñ ci moom maanaam stress musul dal pop Malick Sy nu adina dikke rek non la koy recevoir mu amone philosophie boobu ba taxna na boo ko sax da nga na kii daal amul souci adina et pourtant c'est un homme mortel c'est un homme comme tout le monde mais yalla may ko nak euh laay lay go xamni boo ko rek do bëgg lu roy roy ci mom quoi waaw yu rafet di nek ci moom Eh, booba sax njàngum kooku laa daan njàng xëyril maxluubi alim wala laaliina waaye moom moo ma defaral sama làmmiñ nag ndax comme moom ku man prononciation arabe la maxaarijul xuruf sëriñ Cheikh moo ko jàngal moo ma defaral sama làmmiñ yal na ko yàlla fay dëkkal ko ci àjjana yi gën a kowe intellectuelle am nag moom Pape dafa dafa juddu rek yeewu moom daal bu ñu wax ni dañ ko sol manees naa wax loolu fa tabaarakallaahu ndaxte e, intelligence am ëppoon nay atam surtout ci français français moom nim ci teel a mel moom dafa mel dañ koo ko sol bu dee araab itam bind buñ ko bindal moo ki moroomam moo jëkk a mokkal moom sax day mokkal ba pare di dessiner ay maréchal petin ak ñooyu ak wut ay lan ak yoyu ma len ku ko ci top di nga tardé ndax mom mokal na bindam bu yag moo nun dawun ko topando de dan dan jàng ba sunu puti yi bëgg dag ndax mom boko topé dina dina timbi yow nga dik ci bir ndax yalla ko defal lolu téla a bind téla euh, euh, am xam-xam téla yew waye nak kenn la defoon muy modèle am muy Serigne Cheikh moom xamul woon ni ñoo bokk ndey ak baay moom daal sëriñam la ko jàppe woon kilifaam la ko jàppe woon euh, sëriñ Pape li tax sa xam-xamam ak li mu amoon ci ci ci wàllu may du feeñ wala feeñul mooy euh, ay magam yi ñoo ko muuroon ndax dafa toppoon seen gannaaw ba seen taqandeer doon daan ko làq ba tax na buggul woon àddina ci dara buggul woon dara li neewoon rek mooy nekk ci roxam topp ndigalu magam yooyu te comme bi ñu faatoo ak bi ñu fi jógee yàggul moo tax sénégalais yu bari xamuñu xam-xamam mais ñu ñu daan jon jonte ak moom dafa ne nit koo xamante ni dafa cultivé amoon xam-xam parce que Serigne ko jàngal xam-xam boobu mu am nag aussi teewul daf ko fi bàyyi tukki Malick a voyagé dafa tukki def na Guinée lu man ñetti at ci palais Sékou Touré dëkkoon nee na da na nek seul sénégalais bo xam dama nan siège conseil des ministres bu Guinée yenn saa yi ségu dara wax pare ne ko toi sénégalais là tu penses quoi tu penses quoi de ce qu'on dit nee ma joxé sama point de vue en tant que sénégalais parce que amuñu droit wax ma lenn man damay wax sama liberté def na loolu jóge na fa dem na Gabon dem na Côte d'Ivoire tukki na dem na Europe te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni ki tok fi jang bax jeexal téere yi ki tukki ñew moko ko bu xam-xam kon jàng na ci téere yi tukki na waaye nag dafa incarné la naar ba waxoon boroom xam-xamu arab ba ni laysa fil kutubi wal xaraatisi ilmun innama al ilmu fi suduri rijaali xam-xam newul ci bibliothèque newul ci téere newul ci bibliothèque mu ngi ci dënnu nitu yàlla yi te moom fa la daan tibbee ba pare nekkoon mystique ba ma ne dafa bëggoon jaamu yàlla ci lu ñu bare xamul te nag warul jaaxal benn doomu adama doomu sëriñ Babacar bëgg jaamu yàlla mu nekkoon koo xamante ni dafa bëggoon boppam daawul wax lu ñaaw daawu ko def benn jour naa ko mais sëriñ yow lu tax doo màggat mu ni ma parce que xaw ma sama noon man xaw ma xaw ma sama noonu kon loolu day na sant yàlla

ak kan ak Seydi Abdou Al Amin ak kan ak Seydi Boubacar Ibn Alaye Mansour ak Seydi Ahmed Sy pam Malick roy bagam yooyu nag ci lépp di tarix Cheikh Ahmed Tidiane fonk jullit yëpp nag pam Malick yëpp ko soppoon waxuma surtout Cheikh Seydi El Hadji Malick waxuma doomu làmmiñam woowa la ma Sidi Moxtaar Mbàkke waxoon ne ma sa làmmiñ mi kenn mosu ci loolu tey laa la ma si gis waaye làmmiñ mi Pape Malick si kenn mosu ci loolu lu baax rek kayoo xam lu baax rek la daan wax lu baax rek la daan def ndax Pape Malick julli yëpp ko soppoon su ma saan dem ndeysaan ca dëkk ba xam ni <laughs> fa la maam jaare bu soo tëdd proxaan ba nekk ci wetu sang ba sëñ Moustapha Bachir da ngay wax ni ah kii kat sëñ Moustapha yi léppam bu toogee rek ci sëñ Mountakha nga ne kii rek sëñ Mountakha booy xaritam ba ñëpp ñu fàttaliku

frappé moi euh, digentem ak Touba surtout euh, actuel xalifa bi di sëñ Mountakha. Cheikh mustapha Bachir dafa bari lu mu dox lu rafetal digenté ñep ci ay bok bima dekké Baobab euh, ma tok ñu ne ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Colobane ma jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko ko parce que xam naa ni farata la may doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni ma agsi ci néeg bi ma ci néeg bi mu woo sëñ Muntaqa sëñ Muntaqa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ne ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaqa ngeen fasante kóllëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Muntaqa ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko mu ubbi yoon wa ah yàlla dogal eh, poroxaan ñëw màggalu poroxaan ba délégation gouvernement bi ñëwee itam ànd ak gouverneuru Kaolack bi keroog dafa wax ni tey waxtaan bi dafa am boroom te Pape mi moo ko moom man duma leen tontu bu ngeen waxee ba noppi moom moo leen di tontu noonu la ko doxale Serigne Moustapha Bachir ni nga daan def def nga ko bu ma dikkee danga ma naan kenn du tontu délégation gouvernement bi yaa leen di tontu wax nga ma itam ni ma recommandation bu président Abdou Diouf joxe woon wax nga ma biig ni ma rafetal nañu ko kon nag wax dëgg yàlla dañu koy sant ci sa tur ak sunu turu bopp ak turu Serigne Cheikh mi nu fi yebal si waaw ndax loolu rekk lañu am maam yi nu am ku leen yëg rekk ñoo ki yow nii waaw ndax ñoom rekk la am. mais gis nga waxam boobu bi bi nu waree inauguré Masalikul Jinaan sëñ Muntaxa ñëw fii sëñ pam ni ma damay dem ziare ko bi nu ñëwee ba toog ma ne gis nga nittu yàlla la mu leen boole woon ni leen yéenay bokk jamono effectivement jamono ñëw na indi ko ñu bokk jamono war a doxal donc moom euh, à chaque fois que Serigne Cheikh daan yónnee. Eh, ci màggalu poroxaan nga xamni ni sëñ Moustapha Bassirou dafa amone ay relation particulière ak njabootu Seydil malik rawati na ci nek Serigne Cheikh sëñ pap mo daan dem ci ci magal gi ba ben at at bi ni defale euh, mausolée mam Diarra Bousso ba war ko inaugurer mu tombeek magal gi mais kéro bi mu ñëwé sëñ Moustapha bassir daf ni ko kenn du ko inaugurer yow yaay dem inaugurer ko ndax sa mausolée mam la donc mu amone ak ñom ay relation yu yu yu particulière ñoom Serigne euh, euh, Modou Makhtar Mbacke bi fi jógee yàggul yal na yàlla yeeseen yërmandeem ci moom ñoom sëñ Modou Kara mi ñoom même sëñ bas Abdou Khadir mii cest à que ni ñoom ñëpp wax dëgg yàlla amoon naak ñoom ay relation yoo xam ni ngir xam ni ñoo bokk lépp ndax itamit te loolu li ko ci xiital mooy Serigne Cheikh aussi li may wax toujours parce que Serigne Cheikh moo ko daan yabal ci ñoom di ko yónni mission muy dem Touba di seeti maam Abdoul Ahad di dem Touba di seeti maam euh, euh, Falilou Mbacké ca jamono nettali nañu nee na euh, bis dafa ñëw Touba seet si maam Fallou nee na bëggu bëggu di jot nee na mu ñëw ni ko ah man day góor gi dama dama bëggoon na ñibbi en sëñ Fall ni ko ah foo dëkk mu ni ko ah nee mu ni teg nee eh, ma def ni fi mooy sa kër nga naan da ñibbi toogal et de la même euh, façon aussi noonu la une relation ak euh, sunu mbokku chrétiens yi ndax gis ngeen bu yàggul rek avant muy génn àdduna benn mees bu amoon charité xaritam bu ñu doon defal mees bu génneen Aduna, chrétien mais mu sol dàllam dem ba ca église ba fekke mees bi te gis nga yalla dogal mais jamono bi mu génnee aduna man ci sama bop tok nañu ci kër ga ay mbokki chrétien ñew ni dañu amone yéene su affaire Covid bi wàccee ñom ñu def mees ngir mom gi ñaanal ko tellement que dafa euh, relation entre chrétien ak dama dem ci ben séminaire yagul len euh, dialogue islamo-chrétien bi ni wax len yeen da ngeen koy théoriser mais

chrétiens ci ci ci ci donc moom mu aussi ci ci ci même ci même siège bobu ci le continuer diko ko il il a tellement d'amis chrétiens mais pour wane ni mais nga am ci ñom xarit ñu am ci yow xarit mais yàqul ci sen pas-pas dara donc relation bobu daf ko dundal et puis sans compter nak maintenant ci côté l'ayen, ñom cheikh Ousseynou lay vraiment ay ay wëllëreem lañ won cheikh Ousseynou lay sëñ Pape néna ma dan nañ tok ñom ñaar téléphone euh, presque de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin di waxtan téléphone tellement que de nous, de nous amone affinité nous amoon ben complicité bu nekkon seen digënté donc vraiment bon su dee ci walu kunta kunta yi kooku n'en parlons pas parce que euh, so jëlee ñu melni ñom ñoom Hadj Bachir ñom ñoom Lamine ndeysaan suñu maam jooju nekkon ci awante Fatou légui mais ñom ñëpp.

tey jii nous nañ ko jël en exemple pour que dialogue bobu ñuy wax dialogue inter interconfrérique dialogue islamo-chrétien mais mon taxawaay bi mu ci def ak jéego yi mu ci def mais mënoon na servir d'exemple euh, tey jii ci ñi nga xam ni ñooy ñooy prôner ce genre de dialogue là. Serigne Pape Malick a vécu modestement, père de famille exemplaire, il se maria avec Sorna Mambas, issue de la Grande Royale, Adja Mam Mamya Diagne. Cette union donnant naissance à deux et uniques princesses, Sorna Fatima et Sorna Safiat aussi. keroog bi muy seeti waa kër sëñ Babacar yi ca événement yi Tiwaawan ne ndeysaan te ñu tëjoon leen prison Gorée ba mu leen di seeti ñoom kurdi yi gay ak Alaaji Mbaay ak ñooñu daal mag ñooñu ba mu leen teeti soxnaas fu te ko wutal yóbbal ba pare ni ko na ànd ak man ak Mansour Jaxate moom rahmatullahi alayhi gaañu na bu yàggul Mansour Jaxate ñoo ànd keroog ba ñuy ñibbisi jóge Gore fekk maam Yaasin Jaañ moo jur baayu maam maam baas mii di soxna sëñ sëñ Pape Malick si maam ma maam Yacine Diagne di taalibe sëñ Babacar boo xam ne bii te nag dafa doonoon nitu Dakar doon lébu am cosaan am fii suufak ak léegi xam nga këram nga fa mu nekk te boo nekk ca zawiya Sidi Hadj Malick foofu xam nga jàmbur du fa dëkk foofee la la dëkk fekk nag bi maam Yacine nag mu wax Pape di ko tooñ ni ko sama sët bi de yow ko fi bàyyil maam baas ba ba nay dem nag soxna Astou ni ko ah sa sa sa jabar ja na nga fa jaar de boo boo wàññeekoo na ngeen fa jaar nga nuyu maamam nuyu wale ko ban jógee gore nag ñu jaar foofa nag ci keroog laa jëkk a gis maam Yacine Diagne te laa jëkk a gis maam Baas fa la nu àññee keroog waaye lii moo ci xew yàlla dogal itam maam Yacine Diagne bu doon eh, buñ doon jox mu xadd eh, ijaasa jigéen ci tariqa bi dee ñu ko jox ndax taxawaayam waaye maam ba sax ndeyi daara rek laa koy wax waaye moom mën na ndeyi daara mën na nekk xalifa maam Yacine Diagne wax dëgg yàlla ndax na maam Yacine Diagne taxawoon ci wetu sëñ Babacar nekk ko ci wetu sëñ Cheikh moom itam noonu la mel ah muy ñaari doomam. safiyatu ak faatimatu ñu ngi leen gën a yëgal daal ñu ngi leen di gën a massaw seen wayjur di leen ko gën a fàttali di leen gën a fecc feddali kóllëre gi bi ñu ma waree may soxna amul teraanga bu ñu yóbbuwul fii ci kër gi teraanga buñ fi indi ñu delloo nukk waaw wax ni faatiha rek lañu soxla fatiha la ñu soxla waaw ma jël soxna sëñ Cheikh digal ma waaye lëm ma digal sëy bu may maye danaa leen ko digal waaw dañ ma may soxna ci timis sëriñ Abdoo ko ñaan si alamin ma fekk sëriñ bi ca route de booru 22 heures ma ne ko loo may digal ci soxna siñ ma may léegi mu noppi lu yàgg ni ma nga protéger sa soxna mu ni ma doomu jàmbur ku ko jël danga koy protéger mu ni ma bi ci des mooy buleen leen nangu ñu envahir seen intimité mu ni ma bu ngeen bàyyee ñu envahir seen intimité dingeen dem ba bëgg dégloon te dootu leen ku mën ndax ñi ko envahir mu ni ma buleen am intermédiaire mu ni ma jàng nga li yonent bi wax ni néegu sëy ñaari lal ñoo fa dagan bu jëkkër ak bu jabar beneen lal bu leen bëgg a ñetteel jàppal ni lalu seytaane la mu ni ma bi ko ñeenteel bu leen am habitude mukk di waxtaane détail parce que détail dafa yomb boo ko miinee wax farata jafe la mu ni ma bi ko juróomeel moy li yalla dogal ci yonenti dogal ko ci awliya wi moy bu teye nga am dépense bo lëgee doo ko am waaw ma la yalla terele terele aduna bi mu ma yi dal man mom la lay denk Au-delà du guide religieux charismatique et raffiné qu'il était, Serigne Pape Malick savait aussi faire de la politique. Il est aussi un patriote incontestable qui a payé de sa liberté plusieurs fois pour la défense des intérêts du peuple sénégalais. Pape Malick Sy dafa traversé ay ay cycle politique yu Bari. parce que ànd magam di kilifam Cheikh na de Tidiane Sy Al Maktoum Jambaro ak Senghor ba li nga xam moko dal ci prison ci Serigne Cheikh Tidiane si la ñëkke la ñëkke. man suma sëriñ parce que talibé Tidiane la ñu bokk ko Jolof mais maa ngi am ak moom dëgg-dëgg jëflante ci atum 1994 boobu fekk mu ànd ak kii di Ablaye Wade di ko jàppale ci wàllu politik moom ak yeneen kilifa diine ba yàlla suñ borom. dogal ci xew-xew yooyu ñu duddee 16 février 1994 ñu boole ñu dugal ñu jàpp ñu dugal ñu prison boobu Abdou Diouf moo fi nekk bi ñuy jàpp di ñu dugal prison nag prison boobu dafa xaw a doy waar ndaxte bi ñuy ñëw ñun fekk nañ fa Serigne Mustapha si. personne morale euh, Moustarchidina wal Moustarchidaati fekk moom mu jafle woon jëflante woon ak Abdou Diouf ba ñu teg ko loxo dugal ko foofu mu doon aussi 1993 fekk ci la ñu boomoon maître Babacar Seye mu doon vice président conseil constitutionnel ñuy jàppoon ci Abdoulaye Wade bayewaat ko mais téye fa ñu bëri ay ñoom Mody ay ñoom Samuel Sarr ay ñoom Pape Samba mbubb événement 16 février ñëw nag dugg ci ñu boole ñu ñun ay kilifa politique ak religieux Ablaye Wade Pape Malick Sy Landing Savané Cheikh Tidiane Sy Pape Omar Kane ak man mi ñu dugal ñu prison jàppale ay téeméeri téeméer war ñoo mat ñetti téeméer yoo xam ne ñi nee nañu ay murtashidiina wala murtashidaati lañu taalibe

ci limu jang ci serigne Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci gëm sa réew bëgg sa réew bëgg liberté bëgg démocratie parce que moom léppam même ci politique dafay tënku ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum euh, bañ fa nekkee mu nekk fa ak njàmbaar goo xam ne gi man ci sama bopp sax daf ma daf ma xaw a waar mais surtout euh, yegul won bopam né mom mi ngi ci kasso ay fatali ay abi rek la mo daan wax nag ben bes ñu teud woy yeewalu ma wax ba am nga nelaw ma ko waa bi fi mom nuñ fi nelawé <laughs> mu ne ma dara rek la lay yëgal de حبيب الله مالك مو نمو فكرن لا توقنتل تي ناس الحق بلاق مالك واو مو نمبل لا تي سراتك المستقيم مالك واو مو نبوتي لا نور المتلزم مالك واو مو نبون لا غدي في نغتي رك ماك نيب ميري لا مالك ديغ نا سيغ بي ليغا واخ ca jamono jooju lañu xaw a laal daara maak moom suñu néeg ba moom ma jàngal jawaratul kamaal li mu wax may tontu may may may répété allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati mutaaxifati aytati bi markazil fuhumi wal maani ba mu jeex te comme ku bëri woon euh, il avait de l'humour mu ne ma ah, mokkal nga de waaye nday mag ñu baree ngi fii di kaalawu te mokkaluñ ko ma ne ko jara jërëjëf si waa xam nga euh, sëñ Pap euh, euh, xam nga nag yàlla def ko baaxee bi mu gënee nekk ndaw il a voyage mu dem fi surtout en Guinée te Guinée yàgg na fa lool mais li nit ñi xamul moy gis nga dafa amone ak Sékou euh, Touré ay relation yo xamni ni Pape demoon na ba di siéger ci comité central de parti Sékou Touré bi dem na ba Sékou Touré suko ko camarade malik Sy rek la koy woy comme ñom ni daan wonte seen biir parce que bon il avait des idées révolutionnaires donc tant yooyu Sékou Touré fi nek avec euh, période indépendance révolutionnaire bon bëgg Afrique bëgg réewam donc sëñ Pape avait beaucoup de de de de de pour pour moi, mais donc mu nekk Guinée et il m'a raconté un jour mu ni ci seen réunion yi naan def ci comité central et dafa am benn jour rek Sékou euh, euh, Touré demandé ko pour mu def un article quoi sur la révolution ak yooyu ah nee na mu dem toog bind article ba mais bi mu def article bi nee il a fait référence à la négritude nee na bi mu ko defee ba noppi ñëw jox texte bi Cheikh Touré nee na ñu gis seen prochaine réunion bi ñu ñëwee fi ñu toogee mu gis Sékou teg euh, texte bi mais souligné en rouge li mu wax ci affaire négritude Néna na bi ñu paree mu ni dama la soxla mu ñew néna na mu ni waaw j'ai vu ton texte vraiment c'est bien fait ni ko waaye dafa da nga ci aborder ben thème bo xamni ni neexuma moy affaire négritude parce que si vous rek cheikh Touré ku li ci alors néna ne seigne Pam ne mu jox ko nak raison euh, euh, camarade président ni il faut nga xam Afrique def ni l'Afrique a besoin euh, de la sagesse boigny l'Afrique a besoin de la culture de Senghor l'Afrique a besoin de la bravoure de Sékou Touré ni ko il faut que yii yëpp Afrique dañ ko soxla ñu seet naka lañ ko combiner alors ci la Sékou mujj wàcc euh, xam ne li mu ko wax mënu ci teg leneen mu accepté ko donc gis nga engagement am yooyu moo tax bi mu dellusiwaatee ci réew mi aussi euh, euh, mais il a eu à cheminer ak ñoom Majmout Diop bokkoon na ci ay parti de gauche hein.

ba mu génn avec le PDS ak yooyu jàkkaarloog régime bi fi nekkoon régime PS ba nu jàpp leen ci yóbbu leen prison et tout cela mais cest un engagement parce que pour moom euh, ci moom la gisee c'est-à-dire nit koo xam ni su xasee gëm benn mbir gëm na ko waaw du gëmantu daal waaw xam na ni que ni lii moo nekkoon loo xam ne daf koy def pas pour moom wala pour sa famille wa déedéet daf ko doon def pour parce que peuple bi ñoo soxla woon loolu donc engagement boobu daf ko gëmoon ci la nem aux côtés de Abdoulaye Wade des euh, Landing Savané tey mais ñoom ñëpp ànd na ak ñoom bataillé dem nañ prison def nañ tout mais pour cause boo xam pour moom c'était une cause saine une cause vraie mu topp ko ba yàlla dogal ci loolu mu ci dogal donc gis nga pas-pas boobu euh, dama ni très euh, tôt dañ ko yar ci tu vois parce que euh, qui connaît Serigne Cheikh parce que <laughs> Serigne Cheikh ne a xam totalement mais ku xam ci moom di nga xam ni ku yaat euh, dina def ci yow pass pas bo xam ci ci waaw et so ci dugg jeex doomu soxna rek wala dafa wa bu un patriote bu mi di day ànd moom ci xeex yu bare ba ñu jàpp ñu dugal ñu ci kaso ma bokk ak moom cellule camp ñu nekk ci benn kaso man ak moom ak doomu Serigne Cheikh Abdou ñu gën a minante ci biir kaso bi di def suñu ay darsu ci biir kaso bi ba ba ñu génnee wóolare boobu sax sëriñ Cheikh gën ko suuxat gën ko saxal ndax saa su nekk ñuy gis ak moom ñu xamoon ci moom ni Serigne Cheikh yëbb na ci moom ba mu jeex tàkk koo xam ni ah li ñuy wax am sœur wax naa démb ni amour fusionnel la woon entre moom ak Serigne Cheikh kenn mënatul woon xàmmee ñaari jëmm yi ndax moom dafa demoon ba Serigne Cheikh yëbb ci moom ba mu jeex tàkk tàkk tàkk bu bu taxawee di wax wala buy dox wala bu solo wala même buy nelaw nga ni Serigne Cheikh moo nekk kon nag ah démb wax ni taq Serigne Cheikh l'ombre de Serigne Cheikh s'en est allé moo fi jógee Sénégal ñàkk na kilifa diine bu mak bu am pas-pas mais aussi bu yaatu ubbeeku am wax ouverture d'esprit mais aussi bu am raffinement ak élégance bo xam ni dana tax nit ñi gën a ñome diine ji gën a fonk diine daawul tiital nit ci diine daan na ko euh, rafetal ko ba nga ni nit ki dana gën a ñome xiir diineem nekk ci prison bi c'est situation yu est très difficile. ba jamono il faut que nous pour vraiment faire parce que euh, kenn euh, jugé wuñu grève de la faim mais mu ne moom rek mooy def grève de la faim ñun buñ ko laal la ni Savané ne ko déedéet pap mali ne ko déedéet ñun ñëpp ñu ne ko grève de la faim mi ñooy ànd ak yow def ko mais li ci doy waar mooy pap Malick dafa yorewoon ulcère bu xaw a métti mais li muy yore ulcère yëpp parce que ulcère bëggul xiif njàmbaaram tax na jàmbatu ko ba juróomi fan grève de la yi ñu def daf ko ànd ak ñun def ko lekkul benn yoon maa moom bokkoon nekk te lu nekk mënoon na cee xew ulcéreux boo xam ne sévère sax nga toog juróomi fan lekkuloo kooku njàmbaar ak gëm sa réew ak gëm démocratie ak gëm kilifam Cheikh na Ahmed Tidiane si almaktoum moo taxoon mu di ko def. léegi nag dimension politique dëgg dëgg boobu mooy fi ma ko nattee mooy wutu ca dara seetu ca intérêt wutu ca xaalis wutu ca poste lu tax ndaxte bi ñu génnee prison en 1995. après dañu dugg ñun ci gouvernement Abdou Diouf moom la ñu tuddee gouvernement euh, majorité présidentielle élargie Abdoulaye Wade ministre d'État man ma directeur de cabinet pendant ñetti at mu éclipsé wut Amu dara lu ñëw wut ba ñu le pouvoir 2000 ba def ca fukk at wala fuk yatak ben. benn gisuñ Pape Malick Sy

bi ñëwé quelque temps après mu ñëw am audience génn ak président ne ma président daf ma proposé pour sama doom def naa Sofietu la daf ko bëgg a def ministre ma ma xaw a sar xolle ne ko sëñ bi suñ doom de bu ñëwee wax dëgg yàlla kooku moom yow da nga ciy génn sax ñun ñoo koy téye encadré ko parce que suñu suñu doom la mu ne ma waa bi balaa wax nga dëgg mais amaguma ndigalu Cheikh Tidiane Cissé ma ne ko ah, baax na mu dem ab diir dellusiwaat avant muy dugg ci Ablaye Wade sax président Ablaye Wade maa moom ñu gisante mu ne ma Serigne Cheikh Tidiane Cissé nee na jaru ko dañu yaakaar ne politique boo ci duggee jàppale et

bi mu doon ci engagement politique. xam nga dañu dama toog alaaj jóob bu njaasaan yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fekk ma ci kër gi ni ma kaay wuyu sa nijaay Seydi Kunta ma fekk Seydi fii ci kër soxna Mariam Kunta Sidi Ali ni ma dégg c'était en 1959 mu ma dégg naa da ngeen formé parti politique muy le PSS ma ni ko waaw mu ne ma ana Serigne Cheikh ma ne ko dafa dem Dakar mu ma parti bi ngeen formé am ngeen ci droit parce que ay citoyen ngeen mu ne ma mais maa ngi leen di ñaan bu leen wax kenn lu ñaaw moom Sidi Ali Kunta mu ne ma bu leen saaga kenn nit mu ne ma xam nga koo saaga ndey bu fayoo yaa saagaloo sa wayjur mais wax lu ñaw du avancer réew waaw réew yéene bu rafet moo koy avancer waaw bu ko defee euh, nañu seet nañu seet ba xam

tout comme son père Serigne Babakarsi et son maître Al-Maktoum, Serigne Pape Maliksi fut également un exemple sur le plan professionnel, chemin du véritable développement économique. waa xam nga nag ñoom seen wàllu yëngu-yëngu euh, toujours dañ ko daan delloo ci li seen wayjur sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon wax ndax mag ñi dama euh, dégg ñu nettali ni Euh, bi sëñ Babacar dafa wàcc ci saalam nee nan bi mu toogee sama woy jur bu góor sëñ Alaaji Cissé nee nan laaj ko ni ko ah, góor gi ñun day bëggoon nan nga baaxe ñu liggéeyu taalibe lu muy doon neen sëñ Babacar ni teg ba si yàgg ni ko ah, xam naa day du génn ñaar du génn mbay du génn commerce donc ñoom ci wàllu boobu rek lañ daan yëngatoo ci wàllu mbay ak ci wàllu commerce mais di ko def nag ci anam bu discret boo xam ni daanaka nit ñi duñu xam sax seen yëngatu ci wàllu boobu lan la mais ku leen xam-xam ni euh, dunde wu noonu addiya addiya moom leen woon a dundal ndax koo xam ni lan lay jox da nga ciy teg pour dimbali ñi nga am kooku yaakaaroo ci àddina addiya pour dunde

mi ngi woon ak ay tolam mi ngi woon ak ay activité commerciale di def ay opération mais aussi très discrètement vraiment kuko kuko xamul minul trop do meuna xam ci mom yoyu parce que tamit euh, li ni wax que ni am na loo xam ni soxlawul nit ñi xam ko l'essentiel moy yow mi koy def na nga xam li ngay def rek donc ci walu bobu daan na ci def ay yëngu-yëngu yu bëri amoon ak contact ay am homme yu bëri nit ñi daan ni ñëw di waxtaan moom ay wàllu projet mu ci daan dugg mais lu ciy def rek euh, discrétion bi ko kilifaam yare ci noonu la ci daan demee daawul bëgg daraam siiw daawul bëgg daraam ñu fekk ko ci mbedd mi wala naka sa noonu kon fa tabarakallahu yëngatu la woon ci la daan def ndax it ñoom euh, ca Seydil Haaji Malick ba ci sëñ Babacar ba ci ñoom ku ci nekk la nga daan dundale sa njaboot mooy li nga daan ñaqal sa bopp waaw loolu moom euh, exemple yu bari mën nañ ko ci joxe ci doo ci sëñ Babacar ci ay magam ba ci moom la di ñi daan am nag di leen ko yéene ngir hadiye ngir barkeeloo ko loolu doo ko bañee sa taalibe ndax mës naa dégg ci moom mu ni saan mës nay waxtaan ak Serigne Cheikh ni ko waaw addiye ndax euh, dagan na ba léegi neen sëñ Cheikh ni ko daggan na waaye li nit ñi am addiyee def ci xajatul fi mu toll xam nga kii am dépense su këram matagul kook su ci bëggee génne addiyee dafay xaw day war bokk na ci li ma gënoon li ma gënoon a yéem ci moom mooy générosité sëñ Pape lu mu yor daf ko daan joxe daal di dencul woon dara ngir moom wala njaboot lu mu yor daf koy joxe ndax man loolu dama ko fekkee à plusieurs reprises donc du woon koo xam ni alal wax naa ko ci biir waxtaan bi def ko yitteeloon déedéet yitteelu ko woon waaw ko lam ci daan liggéey tamit lam ci war a jëfandikoo ci karam daf koy jëfandikoo lam ci war a dimbalee ay njabootam ak mbokkam daf koy def koy daf koy daf koy def ndax la preuve bi fi ay kilifaam jógee di Serigne Cheikh ak mais lépp lu daan dox ci biir xadara Serigne Babacar Sy moo ko daan doxal te ci poche am la ko daan doxale ah, xaaru ci woon benn taalibe xaaru ci woon kenn xaaru ci woon état xaaru ci woon kenn waaw ah, lépp moo ko daan def waaw te musulman mosul au contraire dafa ñëw sax lan daan def mu yokk ko waaw kon loolu pour wan la ni loolu kese kese mënu ko il faut que nga am benn activité soutenue moo lay mën a permettre pour yooyu nga mën ci nga mën ci def face. mu nekkoon koo xam ni dafa njaboote woon ñëpp sëñ Pape Malick dafa dund dund boo xam ni dafa yéeme woon parce que muju dundam. dafa am ñoo xam ne sax dafa def moom ba jaaxal leen ci wàllu njabootam ci connaissance bi mu amoon ci réew mi ak ñi ko yàlla boole loon mu nekkoon nit yàlla bu effacé woon ku buggoon kër Seydi Hadji Malick buggoon réew mi tamit parce que daan na def loo xam ni ci dundam ci wàllu politique fu mu yëg ci politiciens yi ay xaar ma yàlla daan dox seen diggante yi daan sol dàllam wala kum ci mën a woo mu wala këram loo yëguwul ak sa moroom fexe rek ba diggante yi rek di tax mu nekkoon nitu yàlla boo xam ni euh, ñun ñi sax daf ñu jaaxaloon ci ni mu doon dunde ci mujj dundam téye kër Seydi Hadj Malick téye boo xam ni dafa yéeme woon foo ko natt rek weesu na fa mu nekkoon nag ci keppaaru Serigne Cheikh suñu baay bu baax ba yàlla na yàlla yokk leeram nekk ci mission nekk ci mission ba ni Serigne Cheikh laax ko mu wëlbati ko nekk ko ci magam ji sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci dund sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci feebaram daan xëy suba gu yàlla sàkk di yendu Tiwaawan ba jant soo mu ñibbisi waat Dakar ba keroog bu sëñ Abdou di dog dafa nekk ak ñoom ba yenn heure yi ci guddi gi dafay yegg si rek téléphone am sonné sëñ Babacar Pape Aïda woo ko ni ko ah yàlla de def na li gën mu jël mission boobu boole kook yeneen i mission di ko ci kër gi. Dans ces deux derniers messages en tant que porte-parole de la communauté tijane, il manifesta son inquiétude face à la propagation rapide du Covid-19. Serine Pab Maliksi qui s'était exprimé le samedi 14 mars 2020 puis le 23 mars 2020 avait affirmé être une voie de conscientisation. yàlla qui yi mu am yëpp ñu di ko obéir kenn moo ci gën a dëgër bopp muy doomu aadama waaye ngelaw du weranteeg moom ndox du weranteeg moom safara du weranteeg moom lii xew ñuy wax ay virus dafa bokk ci junuudam yi yooyu yëpp ay régime am lañu waaw bu doomu aadama obéirul ñoom dañuy obéir borom bi duñu hésiter waaw inna al insana li rabbihi lakanud wa innahu li xubbi xayri la shadid waaw waaw waaye lii nag li taxoon ma wax ni dama cee tiit ma waxoon ni j'ai peur et je suis inquiet li ma tiital moo di du du feebar bi waaw parce que feebar bu nu mënul la faj amul. li taxoon nag ma ne euh, euh, euh, j'ai peur parce que damay ragal nit ñi. feebar bi fàtteloo leen seen borom bu amee rek musiba am. événement bu am moom am na capacité jàngat événement boobule ba jële ci ay njariñ yoo xam ni. Euh, boo dee esprit simple doo gis njëriñ yooyu le loolu maa ngi koy jëlee ci pam Malick Sy te it nag li mu xam daf ko daan joxe xam nga naka la koy joxe mooy ci biir causerie yi mu daan def daf lay jàngal yu ci yu bare bare bari bari bari bari ba nga naan yow kii yi mooy xanaa moom dafa jànkonte nag yooyu jafe-jafe jafe Pape Malick Sy c'était c'était l'homme du monde

fa mu waree la koy waxe na mu waree la koy waxe ñemewu waxal la war a waxal ndax dafa newoon ku yaru ku dégg àddina ku dégg jamono loolu mooy li fi bàyyi fexe nit ñi set te cet nekkul kese ci yére ak ci yaram nit dangay set ci xel am njort bu rafet sëñ Babacar dañ ko laajoon ni ko lu yées ci àddina mu nit sëy ku bon dëkk ku bon ak ñaaw njort ñu ne ko ñett yooyu bu ci yées mu ni ñaaw njort ndax bo sey ku bon bu ngeen tàggoo nga am jam bo ku bon bo toxo am jam. waye ñaan jort yéenay dekk te ñaan jort xalaat bu salté rek ko koy indi nañu rafetal xel yi xam nga ki dem ba ne yeguma sama non. xawma ni am na non moy koku rafetal na xelam mais nak dafa dem ba am jeexital ci nitam ba malik c'était la propriété par excellence ci walu cet rek nit ku genn rek rafet mom la won ta allahu jamil yuhibbu jamal dafa nekk moom yàlla rafet ba pare bëgg lu rafet Pape Malick man na moo doon loolu. li ma gën a frappé ci moom mooy élégance morale am maanaam Serigne Pape ni mu yiwee woon man def ma yéemoon macha allah xam nga damay wax ni euh, gis nga kilifa jafe na nga miin kilifa ci intimité te gisoo ci moom loo ko xeebe mais. mom plus nga koy gëna min miin intimement la wax de plus nga koy gëna min intimement plus mu lay gën a ndax xam nga euh damay wax souvent que ni xam nga nit ki nek néegam xam ni sa nek nga nek oh, vraiment c'est intimité la man nga permettre sax certaines choses mais ko yar bopam ba même su nekkee ci bir néegam doo ko ñëw fekk mu am ben comportement bu bu bu bu jaarul wala mu sol yere bu wala nangam ak nangam biti alors donc je me dis que euh, lan wax que ni seen wayjur sëñ Babacar si la daan wax ni li li daan yéem nit ñi ci googu ak parce que bëtu yàlla bi dul ci man raf bouger donc dañ incarné ndax fu nu toog rek xam na ni même suñu nekkul ak nit ñi tamit am na bët bu tegu ci ñoom seen i bëtu kilifa ñu ngi tegu te bëgguñu ñu am benn comportement boo xam ni yàlla dina leen ci jéppi seen i kilifa si leen ci jéppi nit dina leen fa fekk jéppi leen donc vraiment loolu yéemoon na ma ci moom ni mu ni mu yiwee woon macha allah et puis mandu mandu man day nekk naag moom ba du ci nii rek parce que sëñ Pape moo nu yar. bi nekké fi fii nekk xale tuuti di jang lycée ci ay loxom la nekkon Tivaouane laata mu fay joggé di ñew Dakar ñun bi jiddo ci ay loxom la nu nekkoon mais mosuloo ko fekk muy wax waxi jambour jamais de la vie lu ko concerné wul concerné wu mbir dina xew fi aduna yëpp yekko mais mom su ko concerné wul yonam nekku ci donc xam nga nit ku mel nonu ci jamono bi ñu tollu dafa dafa dafa dafa dafa raar su ngeen toogee ak lu waxtaan bi bëri bëri waxtaan bi génnul xam-xam wàllu kër gi wàllu tarixa bi wàllu diina ci mais ay diw nangam ak nangam soo ko commencé wax sax nga gis ci kanamam que ni lii intéressé wu ko waaw donc vraiment daal euh, euh, euh, manduteem ak tamit man dund naa ak moom loo xam ni su doon kenee na ak jamono bi ni mu fi mu toll ci possibilité yo xamni walu wàllu surtout mais comme comment ko moomu ko keroog mais señ bi li yako ko ma mais si li tax ñu ñëw ci yow wax la yow yako mom moom man hmm. je ko jox rek ci bi ñu ci ne lew man ne mu pas xeyna de dugg ci détail histoire fi di ko mais ci ci

lu mu yor néeg na koo joxe lekk itam du lekk moom dong faw woo waaye day tànn nag ñu mu wóolu ñu bokk di lekk citoyen accompli accompli citoyen accompli mooy nit koo xam ni tama ñaari boor la ci biir société soo ko woowee ci lu moderne mu tase fa ak yow ba wax la ci won la ci loo gisul loo xamul soo ko indee it ci cosaan mu génne la rafet ca biir cosaan ba jox la ko ba nga mën a nekk ci biir société bi yooyu daal mooy li ma gën a jàpp na bokk na ci li ma gën téye ci Serigne Papa Malick si message bi ma leen di lancé mooy Serigne Papa Malick modèle la woon bu jarul ñuy dem tuba bi di wuti ku ñuy wax Platon wala Socrate wala Macron jarul dem États-Unis jarul dem ci arabie nañu yam ci Serigne pap mi fexé Lim fi joto a ci limu fi bi mu feulé ñu jël koy daf ko njàngat mbubb mom fi bàyyi dem ko sol moy jàpp do doo rafetal say jëf ak say wax rafetal njort jël mbaax def ko jikko ndax ku baax wettaliku ku bon wet sëriñ Pape Malick ku baax la woon ku yaru la woon ku sell la woon ku set la woon yooyu daal buñ ko jëlee defe naa ak li xew ci àdduna bi ak xale yi nga xamante dañu manqué repère Pape Malick mën na nekk ci ñoom benn bu boussole ba bu ñu réeree bu ñu ko xoolee rek gindi ko. li mu xeex ñëpp tëdd prison souffrir. bañ àggee pouvoir taxul mu laaj dara dafa dem toog jàpp njàmburam kooku model la modèle la pour ëllëg si biir nitu diine yi nga xam ne dañu bëgg a def dugg ci politique wala ñuy jàppale politicien la modèle la ñi nga xam ne aussi dañuy def politique rek xam ne politique du sa intérêt bopp mais intérêt askan wi loolu la Pape Malick ci parcours am politique te lii nga xam ne yaakaar naa moo tax sax doxuñu réew mi xaw a yéex mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci këru diine yi ci daara ñi arab ñun ñi nga xam ne jang jàng tubaab ñun ñoo ngànk état bi na leen yéen bokku leen ci xamu leen dara waaye waaye dama leen wax toujours ki organiser Tiwaawan ba mu mel ni mu mel di def gàmm gu mu toll te état mënut a organiser mel non, ki di organiser Touba ak ni mu toll ak ni mu mel te état mënu ko waa kooku ko dénk réew mi nga yaakaar mënu koo yor moo ko yor ñun sax alors donc il faut que ñi nga xam responsable politique ñank ñank état bi xam loolu ñu def ay pexe nag ba nga xamné ñoo ñun ñi xam ne am xel ak xalaat bo xamné moy mooy réew mi kanam ñu xol nu ñuy def ba mu ñom ñu mëna doxal bokk bokk ci li doxal réew mi. liko liko li ko gënoon a li fi mag ñi soxaton euh, li fi mag ñi defoon naka la ko gën a renforcer degeural ko. te génnul ñaari mbir nag mooy daayira yi daayira yi quand même sëñ Babacar Sy moo fi njëkk a créé daayira ci daayatul kiram bi sëñ Hadji li génne àdduna daayira bi pour wàllu pas-pasu njaboot yi ci biir kër gi donc loolu ci li ko yitteeloon pour ñu renforcer ko gën leen dëgëral ci la bokkoon et organiser waat leen ndax yàllaa ko dogal mais amoon na yéene def benn tournée nationale Euh, seetuwaat fédération parce que quand même daayira yi bi ñu demee ba am yenn dimension yi dañ leen organiser en fédération bon Dakar amoon na fédération côté Kaolack amoon na fédération côté Saint-Louis amoon na fédération ainsi de suite donc mu demoon ci yéeneem le woon pour cette naka la leen euh, a euh, organiser waatee gën leen nit ñi xam ni lii la mo xam tay tey sëñ Babacar si moo ko fi bàyyi te dañu war c'est une Babacar lu fi bàyyi loolu dundal ko farata la woon et puis aussi ci le service bi mu gis que ni mag ay magam di Serigne Cheikh ak Serigne Abdou li ñu fi bàyyi woon mooy wàllu koskas wa te kër gi tamit ñaar yooyu rek ko ko seq tarbiya bi ak wàllu service bi donc ñaari structure yooyu ñoo dairey ak koskas donc aussi amul projet li ma que bokk bu nit ñëw diko wax ci walu kër gi te lim lay ñëk a posé mooy affaire su fekkente ni ci service bi la dañ ko delloo ci walu koskas su dé ci leneen leen affaireu tarbiya bi dañ ko delloo ci walu daayira yi bon donc mom yoyu euh comme il disait souvent je crois que ni loolu yéen seede ngeen ko bi mi sogo a la première chose bi mu ñëwee dafa ni li fi Serigne Abdou defoon duñ ci changer dara au contraire dañ koy top ben par ben ben par ben te ku ci nekkit ba ngay dem. amna loko santone muy Serigne Cheikh muy Serigne Abdou te wax na ko dul ben yon di ñaan ni li ma sante xamna ko waxuma ko nak waxuma ni ma li lan ma wax ni pour ma def ko mais lim da wax dal toujours li ma sante xamna ko te dina ka def wa donc lolu mom euh du won comme je dis lu mu beggona sos lu bes ndax keur gi luñ fi sosati amul xana da ngay sof manam fek li li ci nekkoon nga seetloo ci doli mais liñ fi wara doxal keur gi. dama koy wax toujours xale yi ma ne leen mais ñun amna lo xamni sunu sunu sunu sonnaté ci ñun la ndax mag ñi li wara doxal kër gi yëpp fi ba yomil akhir tëral nañ ko ba nopi man way dimbale leen ñaan ngeen ma ba ma wa. mam ñaanal mam ñaanal déedéet déedéet. papa ñaanal papa ñaanal papa ba tey ñaanal papa ñaanal papa ñaanal moom mooy papa mooy maam. <laughs> est-ce que tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah ñëpp am lu diis waaye ñëpp bég nañu. yal na yàlla bég ci yéen. ila yawmil qiyaamati. fa tabaarakallahu bëgg nañu li gor mënal moroomu gorom defal ngeen nu ko li jullit mënal moroomu jullitam defal ngeen nu ko lu diis ci ñun fexe ngeen ba mu woyof yàlla bu dara diisati ci yéen tabarakallahu jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer yal na yàlla taxawu leen sàmm leen taas na ci barke mag ñi seen cër seen martaba dono ak seen faybu bismillah ba bi mujj ndaysan fiñu ñu gisante dañu daje biñuy def levé de corps Serigne Alioune sal bu soxna Si bu sid Ahmed Si bolaj Malik muni ma gis nga dé dafa doy war muni ko muni ma aduna way la way ta way bala neex am daaneel daaneelam moy dee loolu lañ mujjé waxtané biñu téggé señ sëñ ñu Sall war ko jullé loolu la wax ca mbolo ma kérok juma jamalay kérok la ko mujjé gis aduna way la te way bala neex am daaneel daaneelam moy dee ala yawmuhu yawmu thulatha bi Son rappel à Dieu, le 25 juin 2020, à deux jours de l'anniversaire du rappel à Dieu de son homonyme, Seydil Haj Maliksi, revêt une grosse perte pour toute la Ouma islamique, en particulier pour la Khadara walladi jalaba dawaa wa baahu wal mushtari waaw ana sa malaat nga ni faatu na ana médecin bi ko daan faj nga ni faatu na ana pharmacien bi ko daan jaay garab yiñ koy faje nga ni faatu na ne ana xale biñ daan yónni muy jëndi garab yi nga ni faatu na kon yàlla rek a mucc Puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis auprès de ses bien-aimés. sa yaakaar ci sa boroom na ëpp sa yaakaar ci sa baay waaw yaakaaral yàlla lu ëpp loo yaakaar sa baay ni ko ndax sa baay di xëy suba ñu tàggee la ko te yàlla kenn du la ko tàggee loolu boo ko teelee waajal lu bari du la bett moom fu sa mission jeex ci ko suuf nga ci bàmmeel seen nit ñi xëccoo ay terrain rek daf may jàpp. parce que terrain dëgg-dëgg yi xëccoo woon ko te mooy bàmmeel yi. ragaluma dee dee ñu fàtte ma laa ragal ku ñu fàtte rek dee te dinaay faral di wax ni nit ñi àdduna njatt na leen ci façon boo xam ni ñaanal néew sax nañu ca meloon melatuñ ko maanaam du mën a wax ni wax ni ku ñu suul fàtte ko parce que ñi ngay dem ci armeel yi di ziyaare ji et tout waaye itam am na lu ko gën a am solo te mooy li yonent bi wax ni ku tiim bàmmeelam ñaanal ko faatu amul eh, li am mooy ñaar yu àndoon tàqali ko kenn ku ne delloo ko ci cosaanam ruux kaw asamaan la dëkk yaram matière la dañ koy delloo ci suuf ruux delloo ci ko waaye muñ a ngi fi jullit bu am ku mu ñàkk bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi war na ko muñ ndax tabaarakallaahu bàmmeelu yonent bi doy na ci war jullit te yàlla dogal na ci moom li muy dogal ci ñëpp bu doon dafa am ñu muy tànn di ko dogal ci ñoom am ñu muy bàyyi yàlla am tuuma waaye rek lépp ñépp la ci yemale. Sëñ Cheikh Tidiane Sy mu ni la mort n'existe pas ma ni ko loo tax mu di ma c'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel. yàlla na yàlla bég ci yéen ilaa yawmil xiyaamati fa tabaarakallaahu bég nañu li gor mënal moroomu gorom defal ngeen nu ko li jullit mënal moroomu jullitam defal ngeen nu ko lu diis ci ñun fexe ngeen ba mu woyof yàlla bu dara diisati ci yéen tabarakallahu jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer ila yawmi alqiyam ila yawmi alqiyam nous irons tous au paradis nous irons tous au paradis j'aime suñuy chaîne la waaw waaye asfiya